asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi di leen nuyuwaat bu baax di leen ziar di leen bëggee ñuy suivre si Wassare Lamb Wassare TV tey nag ah, ñu contentement bu baax a baax di jàkkaarloo ak moom mu nekk suñu papa ko ma koy tooñee suñu jantal père mu nekk koo xamante ni wax dëgg yàlla fu ñu fu la parce que à chaque fois bu ñu amee moom lii rek ñëpp dinañ xam ni relation bu nekk ku baax ah ju fas yéene waxtaan ak moom ay. doo ma indil beneen photo wala bi ma ànd ak moom. lamb. fu mu toll instant bi gis nañ ni làmb ji jeex na gis nañ ni combat instant bi am na leneen loo xam te ne ñëw na lu bees moom nag mu nekk ba pare promoteur ñëpp xam nañ ni ko tëggoon muy ñaar production ba léegi nag bruit boobu léegi mi fi dañ ci waxtaan moom laal tuuti dañ koy bàyyi bu nuyoo ñu continuer waxtaan père maa ngi lay nuyu. chéri lay fay maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nga xam ne ñooy seetaan wasaare production wasaare nag mooy tasaare. wasaare làmb mhm. di nuyu ñu koy seetaan ci biir àddina bi ak uh, réew mi di leen balu àq di leen baal di ñaan yàlla sunu borom coronavirus bi yàlla na ko yàlla jëlee ci àddina bi waaye noo ngi ñaan yàlla sunu boroom yàlla na corona génn senegal ñi mu dal yàlla nañ wér kum dalut yàlla na ci dégg di sa cër kum jëlit ku ci yàlla jaar jël yàlla na yàlla tàbbal àjjana. Euh, ñu gis ni làmb instant bi bari na coow problème bi bari na naam promoteur nga naam yow ñëpp xam nañ la ci làmb ci lépp mais instant bi nan nga ma mën a noo gisee làmb fi mu ak dimension bi nekk. non làmb amul problème làmb amul problème amul coow. amul coow euh, xam nga ñi fekkewul làmbi bu ñooy wax ne làmb am na coow mais làmb amatul coow. promoteurs yi fi nekk yëpp làmb tax ñu xam leen tey làmb leen defar moo leen may teraanga laay wax ñoom ñëpp ndax ku ci ne xam naa bi ngay tàmbali ndax kuy tàmbali yor oto buy jar cinq cent mille francs wala un million léegi ngay dawal oto bu jar quatre-vingts millions làmb dimbali na la defar na la làmb tax ñu xam la làmb dem na tey ba àgg ci mbër di war oto buy jar cent million mbër dëkk ci étage bu jar cinq cent millions làmb tax na tey képp koo xam ni communicateur nga yaa ngi liggéey maanaam tey dem na ba ñi nekkul communicateur ancien gloire yi sax nekk nañu tey ay reporters yi làmb làmb lu rëy la def làmb amul coow làmb dafa dox làmb dafa am solo waaye nag dañu ni coow li ci pindab teen bi ñu amul baag a tax kuy baaw rek mooy indi coow waaye ku am gojog baag dikk ci teen bi teel a duy say ndab sa kër teel a am ndox mu neex doo xuloo làmb amul benn yoon coow. waaw ñu gis ni euh, mbër yi bari nañ macha allah catégorie bu nekk am parfois sax dañuy dégg gars naan dafa am ñoo xamante ni màgg bëri ñu ne am na ñoo nii ni ñoom du ay mbër ñu gis ne làmb ji léegi dafa xaw a jaxasoo da ngay gis mbër mi léegi dafa amoon ñoo xamante ni tey danga daan gis mbër ñu daan takkee ngemb dañ daan gis mbër da ñëw rek takk ñu ngemb mbër da ngay ñëw rek dugg ci làmb loolu noonu lan lay def làmb day yàq làmb wala léegi waaw sarme bi lañu dindi parce que xam nga màgg bëre ak suur bëre ak donnu bëre ak jàng bëre bokkuñu dafa am donnu bëre am jàng bëre am màgg bëre am suur bëre yooyu lu ci nekk mbër la dama la koy misaalal donnu bëre tey koo xam ni sa baay dafa bëre sa maam bëre. da nga donn soo ko bëggee da nga ci am facilité su fekkente ni bii danga ko jàng te bëgg ko yàlla sunu borom mën na la cee teral suur bëri nag mooy bay say tool dugub ji ñor gerte ji ñor gajaa nga ñor ñebbe ñor nga lekk dugub ju bees lekk sëb ñu bees lekk gerte gu bees ba am kàttan di bëre ba dégg bëre loolu moo fi am léegi dañ ko def liggéey moo tax ku jóg bokk ci ku am doole dugg di ko def looloo tax waaye ñi nga xam dañ koo donn suñu gemboo nga xam dañoo donn bëri suñu bàkkoo nga xam dañoo donn bëri suñu bëri nga xam dañoo donn bëri Sa Thiès fekk nañu ko dàq bëri ci làmb ji foofu ëpp ko doole sut ko waaye donn gi mu donn moo tax mu am ci facilité moo Balla gay magam dañ koo donn Diène Kaïré dafa doon nu bëre dafa juddu ci bëre baayam baayam bi muy bi ko yàlla sunu borom di dénk soxna soxna ay noppam booba mu ngi ci digg bëre kon kooku su amee doom doom ji dudd fekk baayam di bëre muy raam ci cumikaay yi baayam di raam ci gàllaaji baayam ndeyam di sottil baayam ndox mu di ko jis kooku su su juddoo su ko bëggee def ci am facilité lu mu ci def day yomb mais làmb amul benn problème dox la de. waaw. cumbukaay lan mbër que parfois da ngay dégg ñu ne mbër bi mais bu cumbukaayam dëgëree encadrement bi ko yor technique dëgër sax daan ko du yomb. dañuy sol ci bàmmeel ban moment lañ ko ciy def. li ñuy takk ci garab ban moment lañ koy def li ñuy takk ci mbote bu juddu léegi ban moment lañ koy def li ñuy takk ci geeni golo ban moment lañ koy def li ñuy def ci gémmiñu kàkkatar wala gémmiñu mbott bind ko ban moment lañ koy def loolu dafa am kenn koo xam ni day jàng alxuraan mën bind wala mu jàng français mën a bind ndax bu njëkk cumikaay bu njëkk intellectuel daawu ci toog parce que léegi la intellectuel yi ñàkk métier tax ñu bokk ci waaye 1960 ba 1979 80 booba làmb secteur informel bi rek ci ñoo koy seetaan ñoo ci bokkoon intellectuel dañ ñu daa saboote moo tax fukki pàkki làmbaay yeeg ñaar ñoo daa fees làmb ji làmb bu njëkk bu see jaaykatab yàpp ci daa ñëw ab tayoor sëfoor commerçant ñii ñoo moomoon làmb loolu mooy cumikaay mooy fi ñuy teg gàllaaj yi waaw kooku boo ko dëgërlee euh, Alioune Seyde ñàkk cumikaay tax mu xeex ak ko sotti saafara si bu amoon cumikaay bu dëgër làmbam day àgg ndax moo moomoon bis bi fayuma ko fayuma ko deux millions te jaay na trois millions ci billet Alioune Seye 2 ñàkk cumikaay bu dëgër moo tax mu jóg di xeex mbër du xeex dañ koy xeexal Manga 2 bu ñu masaari ñoo kër Baye Cheikh jóob yàlla na ko yàlla yokku wér raay ba ñu ni adversaire u Manga alxemes ci ngoon reer bi muy reeree war nañ cee def saafara bii kañ koy jox reer ba adversaire bay reere dana fexe ba saafara boobu dem ca reer ba barke Mamadou Rasulullaay yow itam boobu ku mel ni Xaadim Samb ku mel ni Saliou sekk bëgg jàmm ku mel ni Serigne Tàkko Ndiaye Moor yombale dañ ko daa ñëw seetaan Sandaga commerçant la woon ku mel ni Modou caan transitaire ku mel ni Mbaye Seck transitaire Omar Koulibaly Boy Ndiaye Lepar consort yooyu boobu ñoo ñooñu la màng amoon nga xam ni da ngay gis ku taal otoom dem ba dëkk bu ñuy wax euh, dëkk bëre waay ci yoonu Poroxaan wi Ndofaan boobu Baye dara amee fa nekk pour ñaanal dem ñaan lu jël mànga te du ko yëg nga gis ku départ yi fii jëm joyin ci Diomaye Sarr te du ko yëg bu ñu eggee ci bés bi mànga war a ñëw kenn mënut a jot ci màngate amoo koo jaar ci moom ndax kenn du teggi sa bët ci moom dañ koy woon ginnaaw di xool kuy daw di ñëw mais Alioune bu aman ank bu aman cumikaay Alioune amul cumikaay su aman cummikaay bi ko booy bi sottee loolu kenn ay dem xeexeek booy bi mais duñu ko seetaan mu dem di dóor booy bi ba xeex ci ba gaañu ci ba lambam yàqu kon cumbukaay lu baax boobu Alioune Seye de même ñi bëre grand combat amu ci kenn ku jaay un million ci billet Alioune Seye de ñetti million la jaay ci biir ma di ko féliciter di ko rendre hommage parce que moom lay tëggaat grand combat prochain anniversaire moom ak waa ñax jariñu ah. moom ñax jariñu. ah oui. kon combat boobu da koy tëggaat. incha allah bu àndeek dogalu yàlla. Ah, mais mais mais père boobu ah, tëgg nga ko ñu gis ni coow li am na ci parce que ñoom ba léegi jotuñu seen reliquat. mais waruñ jot seen reliquat parce que man maa joxe woon sama reliquat am reliquat bi ñoom man maa ko moom. comme bëriwuñu te kenn deewul ci làmb ji ba làmb jeex ci jàmb bu yàlla sunu borom dogee saison bi ubbi moom dama ko defan combat spécial moom laay def grand combat. moom ak ñàkk jariñu waaw bu ko munu ko bañ Alioune Seye lu ma bëgg lay def. ñàkk jariñu lu ma bëgg lay def. kon combat ñàkk jariñu ak Alioune Seye de Père Khadim Samb da koy mën na sax ubbi saison bi bu àndeek dogal yàlla. loolu kon c'est waaw man na ubbi saison bi bu àndeek ak yàlla ndax jinne su bëggee Dakar ku yéeg daanu. tey ñaanteem production. ku nekk làmb tey di tëgg làmb ngay promoteur maay sa patron mu neex la ak mu naqari la soo ko weddee nañ ñu woo. ci télé ñu toog ma wax la lu ma la defal lu la kenn mësta defal ak ku ma la woon ku la kenn mësta man bàyyiwuma benn promoteur nag. promoteur tuub bàyyul benn xaj. na foo jaar ku ci ne ci ñoom. ku ko ci weddi na ko weddi ñu ñu toog ma wax ko bi muy ñëw ci làmb ñaata la am capital ak boobu fu mu dëkkan ak la mu ak na mu meloon ak na mu mel parce que ku ci ne yor naa photo yu ma ànd ak yow ci bés ñi ñi ko fekke woon deewuñu ngay ñëw ci dibiteeri bi di toog ci bànq yi bu tàkku saa népp ngir bëgg a tëgg làmb loolu nag yàlla ma ko defal gars yi duñ ko wax moo tax ma di ko wax Sidi Diakhaté maa ngi koy rendre hommage yii lu ma leen defalan rëccuma ko Sidi Jaxate Assane Ndiaye Abdou Aziz Ndiaye fu ñu waxee ne yaa ma jëkk dékk micro abdu Aziz moom sama doom la sama goro la sama xarit la sama patron la sax léegi. mënoo gisee bàyyi xam nga Aziz dafa doon làmb. <laughs> 1976 77 bi Ablaye Naar Samb ñoom tëggee làmb tudde ko baayam papaam man la jox juróom-benn fukki junni te booba làmb ji yëpp mutul 300000 300000 la mayeen booba géwél yi man mi maako ko représenté woon Alaaji Ali Ndiaye booba mi ngi yor ceeb bi fii ci Tileen booba communicateurs yi Ablaye Naar ñoom man Ndiaye Samb Abdou Kati Ngom Assane Maroq Kumba Jàngaan sama maam Kaani Samb Demba Lamine Diouf Euh, euh, euh, ñoom ñoom Asmakhtar Diallo Mor Dior Seck Sems Ablaye Naar dañ tëgg làmb mu lebal leen téeméeri junni wala deux cent wala trois cent mille pour ñu tëggi organiser làmb ba pare tuddee ko ko mu ne ma damay dem umra waaye trois cent mille laa lay jox yëkkati cinquante mille may ma ni ma bu ni ma bu baa na nga leen jox trois cent mille yi moom laa leen jox ci drapeau bi Alaaji Ali Ndiaye wàcc aéroport am ko dajeeg moom ni ko géwél yi dañoo perte boo leen yóbbul police sa xaalis dana niil mun lebaluma leen dama leen koo mayoon. Assis dafa juddu fekk mbër yi di toog ci baayam ak manasey ci ñaari baayam dafa baayam dafa amoon ku ñuy wax Jibi njaay kookoo jëkk a abal Moustapha Guèye 4-4 jox ko xaalis muuti sëriñ ci àddina Nissan Patrol Jibi njaay ak Ale Ndiaye ñoo bokk ndey baay Alaaji Aale Ndiaye nekk kër Sey jaaj Malick Jibi Ndiaye nekk kër sëñ Bamba ndax sëñ Abdou Khadir moo doon sëriñu Jibi Ndiaye ndax aale ma jigéen njabootam lii dañoo dem kër sëñ Bamba lii dem kër Sey Diagne Malick ndax seen maam dafa bokk ak sëñ Bamba bokk ak Sey Diagne Malick Aziz kookoy caam yóbbu ko ci mbaar mi dafa mën ak weñ waaw. moom koo xamante ni wax nga ko yaa ko indi ci làmb muy gis Père Gaston ñu gis ne dafa bàyyi woon ñu koy nuyu au passage. mais saa bi dafa yëngal réew mi ñëwaat na ñëw Gaston muy def ci làmb. ñëwam nag euh, wax dëgg yàlla mënuma cee wax ndax lu ma la ci wax damay fen ñëw Gaston ci làmb bi muy bàyyi xaw ma nu mu bàyyee bàyyi bu mujj bi bàyyi bu njëkk ba nag noo ko àndoon dellu si dellu gu njëkk ga it maa ngi moom noo ko ànd waaye bàyyi gu mujj gi yëguma ko xawma ci dara. informé wu la. non fukki at yeeg juróom wax dëgg yàlla euh, ci euh, sama maga nag. waaw mais bu ñu gisee ci leneen la ñuy wax mais maag Gaston dootuñu wax waxatuñ ci làmb. Mhm. waaw mais mais ñëw Gaston lan lay def instant bi jàmm parce que gisoon nañu ñu bari dañ doon jooy ay sponsor tey ñëpp ñi naan Gaston Aziz Ndiaye Luc Nicolaï ñu koy ñaanal ñëwaat jàmm ak parce que soxla nañ ko bu baax a baax a baax mais tey Gaston ñëwaat di ko di teg ay claf te gars yi dañ doon wax làmb ji dee na kay perdre après loolu. wax dëgg yàlla retour retour bi wax dëgg yàlla mënuma la ci wax dara. ok parce que bu tax moo ci wax sa xarit la woon euh, gëj ngeen a déggante contacté wu la moo tax ci mën a wax. waaw wax dëgg yàlla daal euh, nit daal dangay ngay maandu mbir bu fekkee bi muy dem tàgg wula te bi muy del si yëgalu la ko soo maandoo mënoo cee wax Aziz Ndiaye daal xam naa ne. dafa duggoon ci làmb ci senes dem ba kilifaam baayam ne ko baal mu baax mu ne ko jotagut bu jotee danaa la ko wax mu bàyyi mais comme asis dafa judd ci ngar mi ba pare homme de défi la mu dem jamono ba am ay baat yu mu déggoon doon relever défi bi dellu siwaat ci làmb nag ci la flambeau bi tàkki mais li mu waroon def ci làmb lépp def na ko te Aziz entreprise yi mu yor actuellement may ñaan entreprise yëpp yàlla suñu borom barkeel ko mënut ànd ak tëgg làmb Aziz dafa am métier avant muy dugg ci làmb dugg te làmb jox na ko lépp nag maa ngi koy rendre hommage parce que wax na bëri wax na ko bëri ki démb ne làmb jox na ko lépp ci àddina kon mais entreprise yi ma xam mu créé ko actuellement mënatul ànd ak tëgg làmb parce que tëgg làmb euh, mun te jaxasoo dara làmb ak wut loo ko jaxasool mu yàqu. xam naa ñu ko ameel ay soixante dix millions quatre vingt millions. ñu ko ameel vingt millions ñi ameel ko cinquante millions ñi ameel ko dix ñi ameel ko quatre. te ñu ngi ci làmb ji tëgg. waaw te kenn du ko yëg Aziz Aziz Aziz romb na foofu Aziz loolu rek la doon. ay promoteur. du caaxaan làmb bëgg naa yàqu ba ay Aziz àggale ko. te kenn du ko yëg waaw ñaari nit ñoo ma gën a marqué ci suma fee suma feede ren ci làmb muy abdu Aziz Ndiaye ak Dieye production. tax dañu di ay promoteur Dieye fii may wax ak yow xam naa Dieye maa koy nuyu au passage sama doom Abdoulaye Ndiaye parce que man ci kuréelu Dieye la bokk muy promoteur authentique Dieye la ñu tànn muy sunu président. ku ne ci association bi. ban ci. association des ci association promoteur authentique Ah, non ñii maay seen baay ñi ñoo ñëw ni ma yow yaay sunu baay dañ maa fay authentique dañ ñëw takk ñaari million jox ma ni ma dañ bëgg ñaari million yi nga di ko lekk mais ah non non baay ñooñ dañ maa war a teral maa leen jur gone gu ba ñoom ni ma yaay sunu baay dañoo bëgg jariñoo sa xel ma nangu waaye dama dama nekk ci làmb cinquante ans ba retraité di tëgg làmb Abdoulaye Ndiaye sama doom ji ñëw ni ma papa ma ne am mu ni ma lépp maa koy def nome ma mbër jaayuma billet man xaalis laa wuti woon lépp lu nekk ci làmb ji te baax Abdoulaye njaay ñoom ak promoteur authentique ñoo ko def. ñoom ñoo la tëggal daal. policiers yi alkaati yi jee bind segu un million ne maay fay alkaati yi maay fay fere stade. Ah, sa arène nationale à part combat Lac de Guiers 2 ak euh, ak Boy Niang ma la ma fa dugal kenn dugalaatu ko fa ba tey lamba maatut. mais père xam la moom jaaxal sa combat boobu. Ah. yow da ne da ngay tuddaat combat boobu. Hmm. te yow depuis lors déggoo ko. ñàkk jaar yi ñoom ne yow déggu téléphone. duma leen déggu ñu ne duma leen lu ma ñoom maay seen bàyyi maa leen jox xaalis Alioune Seye def dafa def année blanche ñaari yoon kenn tëggu ko Alioune Seye dama ko dimbale. sama doom bu ñuy wax. Euh, du ma wax fonction mais kilifa la sama doom bu ñu wax Souleymane Diène c'est mon fils homme de tenue la suma doom dëkk Faajut mooy xaritam moo ma topp ñaari at ni ma dama bëgg nga dimbali ma Alioune Seye bëre Alioune Seye bokkutoon suma làmb ñàkk jariñu bokku ci woon mais Souleymane Diène suma doom moo man dama bëgg nga dimbale ma Alioune Seye bëre taxawal naa sama làmb ba lamb ji pare ba lépp yemb ma ne ko amul problème ma jël Alioune Seye tëgg ko. mu jaayal la. yàlla laay waxal. Mhm. grand combat bi moo leen ëpp lu muy indi ci lamb ji. Alioune Seye euh, mais man du ma man du ma seeti mbër. man mbër may seet. mais pourquoi bi jeexee père ak li fa am yëpp sa téléphone woo Alioune Seye bi combat bi jeexee moom moo war a déplacé ànd ak baayam ak ndeyam ñëw ci man ni ma papa maa ngi lay gërëm di ma sant ndax fàtte woon nañ ma. te maa tax ñu koy waxtaanee Alioune Seye de bokkutoon ci lamb. mais ko tëgg mu jural la xaalis bu man yëkki su ma ko tëggan ak Balla Gaye de ñoo may seet ndax seen baay maay seen mag. mais père est-ce que nag jaaduwul woon yow nga ne ko ah comme que combat bi. ko def. père est-ce que ak ñaq euh, xam nga man Alioune Seye 2 feesalu làmb ji ñàkk feesalu ko man maay làmb. mais Alioune Seye 2 moo jënd ba kii prix millions. yi mu jaay ci biir xam nga mënoon naa am mal honnête bañ ko wax. mais dama honnête dama gore man. la man bu ma boolee ginaar làmb fees arène nationale maa fa mujj. dama dem rek corona ñëw làmb amaatul. ba pare père nag arène nationale ba sa tëgg bi ñu ngi doon gis après am na leen luñ fa découvrir que affaire mystique ak yooyu làmb ji bi mu desee fukki fan ak juróom la la la gaa yi jóg pour bu mu am waaye man bi ma juddoogut ba léegi damay xare dafa am ñoo xam ne bi nekkee seen biir yi ndey lañuy ñuy xare ba ba ñuy dee. làmb ji jeex na am beauté. mais comme du àgg booy que ni bi. da dama jóg dolli ci li ma dama renforcer suma cumikaay. kon génn nga dëkk bi. soo boolee li Balla Gaye soo boolee ñàkk jariñu Eumeu Sène Senior Alioune Seye 2 Bour Sine boo boolee ñaar fukki mbëri seeni gàllaaj li ma def ci làmb jee ko fuuf. ii kon yow mais yow da nga feebar yow xanaa doom yow bi ma woo ma maa ngi ñëw rek laal naa juróomi butéel ci oto bi door a wàcc. xaw ma foo jógee xaw ma foo xaw ma foo gonte xaw ma luñ la jox nga jëm si man ma bàyyi sama bopp noonu fuuf du ma moroomam mbër. yow itam làmb jooju li fa xew keroog ba pare làmb ji egg am buté du caaxaan yow tamit dama la ni ci ñaar fukki at yii li xew keroog ci ban làmb la am làmb ji àgg amut mais day jeex am buté ala kulli alin bu àndeek dogalu yàlla ma di ci félicité président Macky Sall bi ma ko tuddee woon ak première daam mais gars yi nag da ngaa ci làmb wax dëgg yàlla ba fi may waxee yow maa ngi ci ci xaalis bi laay dund. ku door yi bari na. lamb am na xaalis. mais ñoom nee nañ tëggoo ko woon da nga doon dóor. wuyu ma man du ma dóor dama am métier mais lamb ji am naa ci xaalis tabarkàlla macha allah. 100 pour 100. 100 pour 100 pour 200. nit da ngay gore gëm yàlla waxal yàlla. après bu ko tëggaat mais man ma suis devenir un promoteur clé. gars yi maa leen créé te dese naa ñële yu ma leen wonul. looy wax ni kon mën na nañoo xaar ñan dem. dama la ne promoteur yi fi nekk ku ci weddi li ma séq ak moom na na ñu invité télé nu toog. jàkkaarloo ak ñoom. barke Serigne Bamba. actuellement maa ngi maa ngi maa ngi dox affiche boo xam ni bii affiche bu mag la mais duma ko wax. parce que bala maa jóg il faut ma renforcer waat sama cumikaay. mystique bi. waaw kon yow gars yi dañoo ñëw sa kaw. xam nga e, e, li ma yàlla sunu boroom jox ci kàttanam ci audience ak niñ ma xamee ci làmb nga gëj a gis làmb ami banderole nga gis gars yi tëgg làmb banderole du am xool làmb ji banderole bi un mois di ko di ko ak Sud FM. kon da ngaa bëgg a wax yow euh, am na mbër xam bokkul xam nga man duma promoteur moi je suis universel man duma promoteur ëpp naa promoteur. man bu la man bu ma wootee Sorano mu fees bu ma wootee Grand Théâtre mu fees du làmb ji man la. man la. kon promoteur buy jàkkaarloo ak yow dootu ko defati. yi man duma promoteur promoteur yi ku ciy tëgg làmb soo moo sax ma jàppale la mais man duma promoteur. ba nee naa la làmb ji jaayuma billet xaw ma ñaati billet xam nga man lu ma am ci làmb ji wuti xaalis ak sponsor publicité yéegal ko samay xarit ñu jàppale ma ak ñi ma ko tuddee defal ma ay teraanga am na ñoo xam ni. France Amérique États-Unis Canada Sappo même sama doom yi nekk Canada dañu defar enveloppe ni ma per nag yi nga war a rey ci kër gi maa koy def te booba amateur yi du daan jekko jëndal na ma nag maa ngi koy rendre hommage parce que nit bu gërëmul nit du gërëm yàlla. non non donc loolu moo tax duma ko def toujours man du ma promoteur promoteur day def semaine bu ne mu tëgg làmb waaye su ma fi yàlla bàyyi bëgg naa at bu nekk. ma tëgg ñaari combat wala ma tëgg benn combat. combat benn combat bi dóor lay doon wala benn combat dóor. yéen lan ngeen di wax door